guddal ñu ngi gërëm ñëpp di remercier aussi le modérateur nga xam ne permettre nañu ñu tënk mbir yi euh, li may wax lu gàtt la rek mooy dañu wax fi rupture rupture bi nag ñu bëgg ko ñu bañ ko am na ba noppi te luy jëm kanam rek la parce que ñun ni ñu defee politique ba egg si fii ni mu wuuteeg li ñu xamee woon noonu la ñuy wuutee ci ni ñu yoree réew mi am na ci élément rupture yoo xam ne li ñu def ci ndigalu président de la république mooy càmbar caytu lañu fekk ci réew mi loolu ci boppam mën na bañ a doon rupture donte nag defe naa guléet ñu def ko te boobu jamono ay texte ñoo ko santaane woon waaye li gën a firndeel bi mooy gannaaw bi ñu ko defee ba gis li ñu gis mu doon loo xam ne jàpp naa ni li ëpp ci ñuy wootewu ci politique bu doon ñoom dañuy gaaw làq ko ndax conséquences yi ci mën a am ñu ne def exercice de vérité jàkkarlook askan wi de lii lañ fi fekk jàkkaarloog suñuy nawle di suñu partenaire ne nii lañ fi fekk loolu ku ko mënul inscrire ci acte de yi gën a rëy ci acte rupture dangaa bañ a gis rupture mais li tax loolu war a am te ñu koy saxal Elimaan wax na ko léegi mooy ñun li ñuy liggéey ni ak li ñu présenté du président Bassirou Diomaye Faye moo koy porté de du premier ministre Ousmane Sonko moo koy porté mais askan wi la ñu bëgg mu porté ko askan wi ndax su ko askan wi wul rek mënoo am benn chance de succès mooy quelques bureaucrates yuy tëju am seen documenté téye waaye boo génnee ci askan wi laaj leen dañ naan ñun xamuñu lu xew consultant bi day wax souvent ni boo demee Malaisie wàcc aéroport jël taxi boo laajee taximan bi ci palaaw ma atir na la ci wax lu bëri mais boo ñëwee Sénégal ma la nga wàcc jël taxi waaye dugal ci bureau yi ñii ne intellectuel lañ nga laaj leen plan bi fi newoon balaa ñuy ñëw mën ci génneel ñaar wala ñetti aspect kon kan nga planifier parce que on planifie pour le peuple te peuple bi moo ko raporti motax ñuy dalal xel ni li premier acte kessé la président de dafa joxe digël ni rapport bi ñuy tiré nañ ci bind provisoire wala la joxe comme digël ñu bayyi dir bu gatt ba xam ndax dina am des remontées ay input yohamne xamné mën na enrichir document bi lolu ak panel séminaire yek porte porte à porte yi dañ ko pour nit ñi gëna faire xam fan fekk Sénégal ak fan lañ ko en 2050. donc la démarche elle a été inclusive déjà mais elle va l'être jusqu'au bout <coughs> étant entendu nak ni en démocratie nous faté fàtte ni acteur politique day ñëw ak profession de foi am ñëw ne askan wi lii laa leen proposé wóoru leen ma ngeen jox ma ma déroulé ko donc ce sera fondamentalement l'expression et la transcription de la vision d'un homme qui l'a présenté à un peuple ñu wóolu ko ci cadre boobu jox ko mandat bu mandat boobu jeexee day dem évaluation ndax li mu déglante ak moom def ko quand la démarche participative ne veut pas dire la coproduction d'un programme. C'est un programme d'un président de la République. il faut un consensus national fort les idées vont s'exprimer les antagonismes opposition dina am pouvoir dina am syndicat dina am waaye nag may wax syndicat yi nii dama yàgg wax il faut ñu dem rebasing social parce que su ñu wax rebasing fii budgétaire et cetera la ñuy yem il faut ñu dem rebasing social bu gouvernement defee effort jàkkaarloog askan ne leen réew mi fii lañ ko fekk syndicaliste bu toog dégg nii 4 pour cent lañ la waxoon annoncé woon déficit yaa ngi 10 pour cent 73 pour cent lañ la waxoon dette yaa ngi 83 pour cent ak yeneen ak yeneen syndicaliste boobu bu jiitalee patriotisme war na xool nu muy moduler waatee ses bu jiitee patriotisme war na may gouvernement boobu un peu de temps mu essaye dabu ba noppi parce ki ngay laaj mënul joxe lu mu yorut mun nga grève mun nga bloqué mais nit mënul joxe yow mi yor sa kër sa doom bu la nee chaque jour su may dem école dama bëgg nga jox ma cent mille francs te yow sa salaire bépp boo ko dajalee cent cinquante mille francs la doo ko jox kon nañu xool lan mooy lu raisonnable mooy état bi dañ ko fekk ci benn niveau niveau boobu ñu fekk ko moo tax ñu njëkk a jiital naka la ñuy def ba premier sacrifice yi état bi ci boppam moom moo koy endossé moo tax ñu njëkk a poser le débat sur la réduction du train de vie de l'état lépp luñ doon dépenser cinquante nañu fexe ba wàññi ko mu dem trente loolu sooy woot nit ñi ci baax danga leen ci jiitu motax ci fan yi président de la République bi conseil des ministres rek ñu jóge dafa joxe ndigal dinañ dajale syndicat yëpp après un travail d' inventaire mais li ñu bëgg ak yéen mooy un pacte social fort basé sur la vérité et la transparence Eliman Bale wax na ko léegi ndax ñaari Eliman la d'ailleurs mooy fu ñu toll rek yéen di ngeen xam fu ñu toll di ngeen mën a nattal seen bopp te ci accord yi bëri na ci loo xam ne jaaduwut te xam ngeen ko ndax yi ñu signé ci dernier temps yépp di parax-paraxe pour bàyyil ñi fi nekk fardo noonu lañ ko defee ci recrutement yu jaarul yoon noonu lañ ko defee ci marché public yu jaarul yoon loolu it il faut que Sénégal yëpp d'accord ko ñu ànd xool loolu nuñ koy saafare moo tax ce contrat social dinañ leen ko proposer man d'accord naa suñu ne suñu principal problème Sénégal problème gouvernance la d'accord naa ci li ñuy jàmbat yépp mi ngi dellu si ci gouvernance moo tax ce sera au cœur c'est déjà ci li ñu jot a dawalagum ñépp gis nañ ni problème gouvernance yi teel nañu du yem rek ci li fi weesu ndax loolu il faut mënuñu ko passer par perte de profit mais ni ko président daal bi waxee keroog day jublu it ci képp koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun ci liggéey bi depuis le planton jusqu'au président de la république nag ñu xam ni ku ñu confie responsabilité dërëmu askan wi dërëmu askan wi la loolu réew mu la ko gën a réussir mu la gën a développé rawatina nag réew yoo xam ne sa koom sa doole bariwul kenn ku ne bëgg di damm ci poosam loolu mënul ne et donc loolu aussi on est tout à fait wax nañu def nañu diagnostic ñëpp gis nañu diagnostic bi da nga koy lënkalewaat ak li ñu wax ci état des lieux bi ñu fekk réew mi moo tax loolu mënul ànd ak li sama yaay ji wax gis nga na na gaaw rek moo ñu andi fi ñu nekk nii na gaaw rek moom xam na ni ceeb soo koy bay da ngay jëmbët dem repiquer man bay naa ceeb xaw ma ndax yéen vallée bi di ngeen repiquer nga delluwaat repiquer bàyyi dem toog bàyyi temps bu mu màggee di ko surveiller nag pour picc yi bañ a jaar foofu ba mu yegg fu ñu ko war a góobee nga góob doog a dem yóbbu ci machine loolu est dañ koy def ci benn fan gis nga na gaaw kuy gouverner rek bëgg nga mu gaaw parce que da ngay a gaaw am résultat askan wi kontaan mais loolu warul yóbbee ci parax paraxe ku ñu fal premier jour bi nga toog yaa ngi naan dans cinq ak war naa taxawaat jàkkaarloog réew mi donc il faut ma gaaw def ay affaire mooy andi nga dem leb lu ëpp la mi àttan pour tabax ay bâtiment tabax ay stade tabax ay tali ñu ne wiw liggéey na waaye laa ngi fi bàyyi loo xam ne say sëtaat sax duñ ko àttan moo tax kuy tabax dang ci da nga koy def ci tey ak dal li am solo rek mooy étape boo toll rek na ko def ba mu mat sëkk ba sécuriser ko def fondation def chaînage bàyyi mu wow nga yëkkati say mur def chaînage bàyyi mu wow nga doog a teg toiture ci jamono ci loolu la ñu woo Sénégalais yi teewul nag loolu sax da nga jox occasion ma leeral dara ndax Sénégal dafa bëri dafa am ñoo xam ne dañuy bëgg a seppi dara dara ci contexte am yóbbu ko fu mu yeggul suñu nee vision 2050 mille tekkiwul dañ ne Sénégalais toog leen di muñ ba 2050 lool tam il faut mu leer ndax gars yi loolu la ñuy génn di wax nee nañu ngi na ngeen muñ ba deux mille cinquante déedéet nun dañoo bëgg étage immeuble dix étage waaye nag jàpp nañ ni weer wu ne wala ñetti weer yu ne mën na am benn étage pare donc mais deux mille cinquante dix étages yi dina mat loolu moo andi vision deux mille cinquante mais ñu teg ko génne leen déjà juróomi at yi jiitu lan lañ ci fas yéene def te ku ko gis xam ni lu ambitieux la kon yu mel noonu jar naa leeral xam nañu fi ngeen di waxee bu baax a baax a baax waaye dañuy woo sénégalais ñu ànd ak tey ak dal ak muñ ndax li yàqu démb la yàqu ba noppi feebar balaa muy feeñ ci yaram ñuy gis picc naan picc bi lan la fekk dugg na ci yaram bi bu yàgg boo ko bëggee faj nag ndànk-ndànk nga koy faje wax nañu mbirum souveraineté ku xam suñu combat politique xam ni <coughs> souveraineté moo ko lal ak patriotisme ci bépp xeetu souveraineté te dina firndelu ci ni ñuy doxalee waaye dafa am yoo xam ne boo koy liggéey ci document yu mel ni du lépp la ñuy exposé au détail du lépp la ñuy exposé au détail te léeg-léeg dañuy wax kuy yoot du sëqët waaye lépp lu ñu mën a jël mus a jël position ne li moo ci suñu gis gi dañ ko doxal ba mu mat wax nga léegi mbirum monnaie mais ñun biñ ñëwee dañoo fekk suñu position dafa mus a nekk di monnaie bii lañu soxla pour defar réew mi suñ ko mënee am ci cadre yi fi fekk ba pare wasalaam ndax cadre yooyu dafa doon ensemble sous régional yu ñu liggéey pendant des ces am na lu ci manqué waaye am na aussi ay atu yu am solo bu ñu naxantee ba sonn mënuñu ko fa am dinañ jël suñu responsabilité xam nga lool lañu yàgg a wax waaye ñun biñ ñëwee toog dañoo ñëw rek fekk ñiy liggéey ci loolu notamment la banque centrale ñëw présenté ñu ay liggéey yoo xam ne def nañ ko ba pare yoo xam ne la ñuy mbébét ñun lépp ci monnaie ma nga ca loola. kon la ca des mooy accompagner processus bi ba ñi ci war a addu muy la conférence des chefs d'État ak yooyu def li ñu war a def la ñu bëggoon ñun ne lii suñ ko amee méngoo na monnaie bi dina méngoog suñu koom ñu am ko ci cadre su régional bi moo gën. suñ ko mënoon am ci cadre CDAO, c'est plus c'est mieux encore looloo tax dugg na ci document bi peut-être feeñul ci président présentation bi mais document rapport bi suñ ko tiiree di ngeen ko mais lu ñuy liggéey méthodiquement graduellement parce que c'est des questions d'une particulière sensibilité mais nous dellu gannaaw ci li nga xam ne moo ne woon suñu position kon yii laa bëggoon ci gàttal yokk ci xalaatin bi mais li ëpp solo ci li may wax man mooy lancer un appel aux Sénégalais son excellence président de la République dina wax ak askanam réew li koy defar mooy am njiit yu am gis-gis te jub muy ben am gis-gis te jub te lii ñu fi exposé tey am na ko wax différence bi dinañu bàyyi aux experts le soin ñu jël li fi nekkoon li fi ñu comparer kook li andi def nañ liggéey boobu mais c'est pas à nous de le sortir tout de suite parce vous nous direz que c'est subjectif mais ñu bàyyi leen ñu jël li fi comparer kook li ñu andi dinañ gis di ça n'a rien à voir muy benn am gis-gis loxoy set bu loolu amee ba noppi nous disons que nous avons une masse critique du peuple qui comprend les enjeux et qui fait bloc derrière eux dina jafe ñu tabax kon askan wi nous Nous bloc derrière son excellence le président Diomaye Faye def bloc derrière le gouvernement Nous avons ci bi brique après brique Nous ne ñeen ñi jaar ñëpp ba egsi ci tànk yooyu la ñu teg Sénégal fi mu toll nii doon te bëggoon nañ buñ koy door ñu fekk au moins li ma wax keroog ci conférence de presse bi fekk réew mi nekk au rez-de-chaussée ndax dañoo ñëw fekk au troisième sous-sol foo ñu remonter pente bi waaye à un peuple déterminé rien mais absolument rien n'est impossible kon loolu mooy fi may daanale ñu ngi leen di gërëm leen sant merci